Touba Daaru Minam ci fi tolloog ñaari étage askan wa fay yeewoo rawatina dongo daara yi tey ci awti tiis aku naqar lan yeewoo kenn ci ñoom war a am juróom-ñeenti at doon jànge ci jenn daara ju nekk foofu ci wetu ñaari étage moom la benn oto bu ñuy wax riim fel moom ñàkk bakkanam oto bi nag mu ngi bàyyeekoo woon wetu jànnatu jëm si woon marché Ocass saf ay client waaye diggante 6 heures du matin jàpp 7 ci la jéye ji daal di am bi ko laalee sax diri na ko mat fukki meetar chauffeur bi nga xam ne nag moo doon dawal oto bi fàttu tànk bi bi mbir mi amee moom dafa wàcc daal di dem fi nga xam ne moo di commissariat jànnatu ngir yëgal leen mbir mi ci anam yooyu sax lan ko téye foofu ci loolu nag ginnaaw constat bi ci la koorub tu tànk bi ànd ak police ak sëriñu daara bi koy jàngal ak oto bi ñoom ñëpp ñu jëm fi nga xam ne nii moo di commissariat jànnatu jamono yi ñuy wax ak yéen kooru xale bi mu ngi ci hôpital bu Matlaboul Fawzayni di xaar nag ñu jébbal ko ay mbokkam buñ sukkandikoo ci askan wi nga xam ne ni nag ñoo dëkke ci koñ bi ne lii nag du guléet mu fi am li ko waral mooy vitesse bu ëpp wi nga xam ne ni moom la fi chauffeur yi daw waaye télé bi ñàkk ay doo daan ñenn ci ñoom ñu jote fekk jéye ji ñoo ko doon fësal. depuis plus bi à part télé mooy ligne li fay jaar ci oto kenn chaque jour oto yi def benn dégâts chaque jour chaque jour war nañu ba sonn gis na affaire ni mel ah lii sax oto ba mosuñu doo daan li nga gis nii mosuñu doo daan à part bi ko fi jëlee daanaka oto yi daanaka ñoroo coronavirus bi ñu wax oto yi leen raw